puis je vais vous donner euh, faire une révélation ñun Thiessois yi on est sur un véritable danger foncier ici à Thiès non li may wax lu leer la y un réseau de malfaiteurs yuy tàppe ay kayit ba tey di ko dugal dans le circuit de l'administratif di jaay suufu jàmbur kooku moom c'est une révélation man Ousseynou Diouf man maa ko ma ne un réseau de de de malfaiteurs ba tey di tàppe ay kayit da xëy. sa terrain wala sa kër ñoo la defal nañu ci diw bàyyi jaay nañ ko par rapport à ça j'ai adressé un courrier au gouverneur de Thiès par lettre en date du 18 mai 2021 réceptionné sous le numéro 1925 pour attirer son attention sur ça courrier bi def naa ci ampliation procureur et dans ce courrier je lui recommandais quatre points essentiels benn bi mu bloqué ses documents deux de concert avec les chefs de service technique ñu xool lépp li nga xam ne falsification la ñu retiré ko dans le circuit administratif trois mu moytu itam di approuver des documents yi nga xam ne tey jii nii légalul quatre mu de concert avec le procureur de la république ñu ubbi une information judiciaire place par rapport à sa ce même document par courrier déchargé je l'ai adressé au procureur parce que man je ne plus comprendre tey jii nii. est-ce que tey jii am nga réponse de leur part. mais amu benn réponse et c'est ce qui est dangereux ce mais Déthié soit bon teint ñoo ngi ñoo ngi spolier seeni suuf y a aucune réaction de, de, de des autorités administratives aucune réaction des autorités locales kenn nangu wu cee wax boo porter plainte les y a un dilatoire les dossiers sont de n'ont aucune réponse mais loolu lu doy waar la mais Thiès a besoin de changement bu may wax changement c'est pas tout simplement sur le plan économique mais sur la gouvernance locale dañoo soxla ay kilifa yi nga xam ne tey bu Thiessois yi amee problème dañuy jug fëgg table bi régler problème bi mais li nga yaakaar li li li jàmm la ci ci ci réew ay nit nekk war un réseau parallèle à l'administration di tàppe ay kayit di jaay guddeeg bëccëg te kenn du ci wax jaay ay suufi jàmbur. on n'est plus en sécurité ña nekk bitim réew di daan seen doole pour jënd suuf ne sont plus en sécurité ñun ñu fi dëkk on n'est plus en sécurité et puis man man man man personnellement suuf terrain bu ma lool suma mag fii route de Dakar 2 ba ñu joxoon ko ay temps benn politicien ba ñu justice dugg ci ba ñu àtte ba mu jeex ba ma toogaat bizarrement ba tey jii ñu ne ma am na keneen beneen kilifa guñ ci tàppeel bàyyi mais yaa xëyti ñun fan lañ jëm. justement problème bi ngay wax muy problème foncier boobu mën nañu wax ni Thiès problème am bi gën a mag lool la parce que chaque semaine euh, ñu génne la benn problème bu ci mujj tudd nañ ci receveur des domaines du ma ci duma ci dellu si problème Bourcade extension kenn waxaalew ko ak yeneen ak yeneen yi ngay tudd nii muy euh, route de Dakar 2 mais tey ji problème bu fekkente ne euh, politiciens ñu ngi laxasu ci biir gouvernant yaa ngi ci biir tey jii askan wi itam ñu war a ñëw tànn ci biir politiciens yooyu ñi nga xamante ne ñoom la ñuy ji ñoom ñoo leen di jiite yooyu politiciens wala ñenn ci ñoom encore ñooy daggaat seen suuf comme ni nga ko wax ñu nekk bitim réew di daan seen doole dem di ko jox seeni i ñooñ wala yu ni mel finalement kan la askan wi war a def confiance. mais nga yaakaar ne yow bi nekk maire tey jaay ay suufi jàmbur ti penses que gars yi dinañ la voté laat pour nga faluwaat bu boobaa doo jaay ay suuf kër ya ñu dëkk ngay jaay da leen di génn jaay kër ya te foofu lañ nar a yegg et j'ai tiré sur la sonnette d'alarme man personnellement Ousseynou Diouf bind naa présidence de la république bind naa ministre de l' intérieur bind naa haut commandant de la gendarmerie OFNAC ak ministère de la justice moo ma dese bind naa autorités yi fi nekk yëpp amul kenn ku ma yëgul ku ku ne yëgul sa yëgul samay gisul samay courrier procureur gouverneur préfet domaine caras urbanisme mais nag dama ne li ci biir yëpp ku ko bëgg a wax bu mujjee bu bu yàggee ñu ne la yow yaa ay gaaf mais lu doy waar li nga ngi tudd léegi problème de de de de receveur mais moom laa lay wax mais lu doy waar mais mais spoliation bu doy waar te nag li fi nekk ñëpp xam nañ ko de xanaa kañ dof-dof lu ak sëgg mais nag da xam ne ne dossier yi tànki kanam la am amul tànki ginnaaw suuf dafa sax nekk la nga xam ne dafa sax ci xol kooku nangul ala kule al bu amee fulaak fayda dana toppiwaat jëli ci alalam. il faut que d'abord. bu fekkente ne nga baal ma ci dog bi jaay doole daf ci am yaa ngi wax kooku nag dina ci toppiwaat jëli alalam comme ni ñuy wax ñu baal ma ci terme bi ñi nga xamante ne leen wax ay baadoo la ñu baal ma bu baax a ñoo am ci réew mi bu fekkente ne politiciens yi ngay wax ñoom ñoo def li mel wala boroomi doole tamit askan wi nga xamante ni euh, benn baykat ba nga xamante ni euh, sonn na liggéey liggéey mbaam am terrain mam ñu def ko noonu li mel mu topp cay ginnaaw ñu koy renvoyé tey ak suba finalement yëf yi day dem ba du mujj fenn mais du mujj fenn boobu laa gëmul on est dans un pays de droit xëy na dëgg la ñiy dëng ngi dëng mais ñi juba ngi jub ba léegi est-ce que tu sais dans cette administration y a des yu ragal yàlla yu ragal seen bàmmeel yu ragal ëllëg xëy na peut-être que bu 80 pour cent yi nekkee ay nit ñu njublaan au moins am na ay 20 pour cent yi nga xam ne tey ñoom dëgg la ñu doxal moo tax ñu gëm ne suñu justice jusqu'à présent y a des hommes de valeur yi nga xam ne dinañ mën a trancher euh, selon vraiment la justice pour àtte dëgg. waaw mais non on peut tromper une partie de la population pendant un certain temps mais on ne peut pas tromper tout tout le monde pendant tout le temps am na des gens hyper puissants yu fu nekkoon te retraité nañu wala ñu affecté leen affectation day am mënuñu ñu affecté nit ñi et tu peux facilement être rattrapé par ton passé suuf mooy la nga xam ne loo ci def suba dalay dabuwaat moi j'ai été ici comme chef du bureau de domaine pourquoi ba tey bu ma tëddee damay nelaw laalu ma alalu jàmbur. te pourtant yi def yëpp ñoo leen ko dàqoon ñoo leen gën a xam ni ñu koy defee documents yi liggéey man maa ko defar nit ki da ngay jub loo moomu moomuloo ko fii mun kenn du dee ba yóbbaale ay milliards ñi koy def ñëpp yàlla suturaal na leen jox na leen liggéey jox na leen liggéey jox na leen am-am mais pourquoi spolier les biens des populations ay njirim ay nit ña nga xam ne tey jii nii seen bàyyi seen ndey dee nañ bàyyi leen alal gi la nga xam ne tey bu ñu màggee jëriñoo ko ngay jël di jaay àq yooyu. mais ñu yaakaar ne àq yooyu noonu ça day day day rombe noonu non dañuy nax seen bopp il faut qu'il arrête ce qu'il fasse nit ñi xam nañ lépp lu fi xew man nag li ma ci wax moom mooy pour ma part seetaan gi ëpp na na ceesuwaayu jug réclamer li ñu li ñu moom ëllëg ñuy ñàkk fula ak fayda di seetaan un groupe wala donc deux ou trois personnes nekk fii di di créer ay faux documents du ko dugal ci biir administration bi di génnaat di ko jaay ay nit loolu moom day arrêté day dakk parce que nous sommes prêts y a un collectif qui est là on est allé jusqu'à la cour de jusqu'à la cour suprême li ñu jëlal Ceesuwaay yi frauduleusement dinañ leen ko delloo dinañ leen ko fay et justice la justice se rendra incha allahu rabi kooku man man je sais que man personnellement bokk naa ci ñuy dox la nga xam ne pour que Ceesuwaay yi nga xam ne jëlal nañ leen seen suuf ñu delloo leen ko. c'est rassurant en tout cas tey jii xam naa ni donte sax du yomb nee nga yow sa liggéey la jaar nga ci ci sa xalaat bu gàtt lan mooy war a mën a régler problème mu foncier Thiès donte du ma wax définitivement du ma ko wax parce que problème bi le mal est profond mais ci loo xamante ne nii aussi bien si côté gouvern gouvernant yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci liggéey bu ñu ko tegoon euh, véritablement problème foncier dina xaw a boog tane Thiès. mais d'abord ñi fi nekkoon di ko def ñëpp xam nañ leen on a qu'à les affecter ils doivent partir yàgg nañ fi te seen loxo taq nañ. ils doivent quitter en plus de sa ça c'est sa ça loolu mooy premier point bi deuxième point bi mais nos dirigeants locaux là nos élus fan lañ nekk bu fekkee ñoom dañoo dem ba dugg ci on a calé on a calé indi fi ay ceesuwaay set loxo ñi nga xam ne tey jii ni soxlawuñu alal al luubal alalu jàmbur wala soxlawuñu tey jii nii di dugg ci ay ñombe ñu fal ay nit ya nga xam ne dinañ jubal. de nañ sàmm alalu askan wi parce que un maire da nga war da nga war a garantir la sécurité des biens et des personnes des des biens des personnes et de leurs biens de ta communauté fonctionnaires yi ñu fi affecté ils doivent être au service exclusif des populations mais waruñoo saay-saayee askan wi suñu éli di ci ànd ak ñoom loolu du yoon association de malfaiteurs la ñi ñaa ngi koy jooy fu ne fu ne fu ne nag ñoo ngi koy ñoo lu ne ñoo ngi koy def pour bloquer ces dossiers wala pour fexe du siiw wala bu nit ñi dañ ci wax dañ ciy wax nit ñi ñàkk ñu fayda ba ñu jël seen alal di ko pamti pamte comme ça et c'est ça le problème de d'abord de la ville de Thiès un problème de leadership ak un problème de gouvernance locale am na ay responsables locaux yi nga xam ne ay maires yi nga xam ne lii ñuy def Thiès kenn ñi moo koo def seen dëkk ku ko fa def tey balaa ngay fanaan yow suba musiba bu garaaw dal la wala ñu affecté la wala yoon woolu la pourquoi nag ñun Ceesaay ñu ñàkk fayda ñu ñëw suñu dëkk di fi def lu neex il faut mm-hmm. ce que aussi ñu koy def dafa am loxo yu diis yu nekk seen ginnaaw parce que impunité yaakaar naa koo xamante ne da nga cee dëkk dafa fekk ni yëf yi fa mu jógee dafa sori dafa am ñu nekk seen ginnaaw moo tax ñu sañ def yenn yi ngay def man Rokhaya Ndiaye am na loo xamante ni moo ko defoon comme ni mu ko waxee suba suba yoon dal sama ginnaaw bu dafa persister depuis ce temps là dafa fekk ni xëy na loxo bi dafa jógee fu sori Euh, gis nga am gàllaaj am wéeruwaay dëgër fit xamul lu ko gën ragal yàlla te moytu tooñ nit ki mënuloo tooñ ak gàllaaj boo munte am ak wéeruwaay boo am munte am ba ba ba sunu borom di la di la may ndam ci ki nga xam ne yow yaa ngi koy tooñ dëgër fit ragal yàlla ak jubal moo ko gën ñu koy def actuellement nii nii nii yaa ngi naan dañoo am branlo mais bu ñu tëddee duñu nelaw fitna gi ñuy dund actuellement ñu loo ko nettali lu ko fi jar lan moo ko fi jar ñun nag dama lay wax nous sem des acteurs politiques yi nga xam ne euh, non seulement duñu yàgg ci biir administration mais nu sommes de fins observateurs ndax li fi xew yëpp ñun euh, ñoo ngi suivre peut-être que dañ doon wax dañoo daal woon wax parce que bëggu ñuy wax. di def ay révélation wala ñu ko xam mais tey waxtu waxtu wax def dafa jot parce que bu ñu xoolee ba ñi doon def lii ñu reconduire leen waat après suba bu ñu fa defee leen lu garaaw lu gën a garaaw ñun amatuñu sax droit pour wax parce que ñoo seetaan ba ba ñu reconduire leen je ne sais pas fii si vous vous rappelez <coughs> Ousseynou le jeune Ousseynou Gueye réew mi le fameux dil de Paris aux abords de la Seine bi mu doon nettali démb fi la ñu fekk ce deal c'était quoi parce que le les maires des des des des, des trois collectivités locales ainsi que leur conseil à chaque fois bu vote de budget doon am dañ koy bloqué mu jéegi ñu dem ba le maire de ville mënatul liggéey finalement ñu ne nañ trouver un terrain un parce que Avec l'acte 3 de la décentralisation, la compétence foncière revient au maire de ville te comme monsieur le maire moo ne woon moom suuf soxlawu ci dara lu dul bàmmeel gars yi ne kii nañ nañ xool nuñ ko bloqué pour que après mu ñëw ñu négocier ñu dem France France lañ ko toggee cooli bëri woon na fi lool Ousseynou Gueye moo ko moo defoon sortie sur Thiès Info même fii dénoncé ko mais ce deal la de Paris au abords de la Seine tey conséquences yi moo ñu topp ba léegi parce que il ils étaient question euh, ñu régulariser ay parcelles yu ñu jaayoon fii biir Thiès frauduleusement après bi bi ñu gisee bunt bi ñu ne kat nañ leen dugg ci ay désaffectation yëgaluñu nit ñi yónni wuñ kenn kayit yónni ay nit ay jeunes il a un jeune que je vais citer personnellement un certain du jaxate ki nekk fii ñu koy wax Diakhaté géomètre xaw ma mooy leen di recensel di leen jaayal ay suuf fii j'ai des documents et j'ai des preuves fii zone nord moom man am naa moom contentieux en privé ba nga xam ne tout ce qui est lotissement administratif lañ yow lañ koy jox et pendant ce temps où sont les agents de l' administration parce que bugguñu les agents de l' administration xam ku ci nekk ñaata parcelle nga am ak kan moo lay jaayal ak ñaata lañ nga jaay ak ñoom ñun xam nañ lépp lu fi xew ce deal moom lañ continuer ba tey jii nii conséquences yaa ngi nii nous sommes des acteurs politiques dañuy suivre te sam sommes dans l'administration fii kenn moo fee def dara lu umpe kon ku yabu rek na nga jubal moo tax bu ñu la waxee ne bu ma la waxee ne la Thiessois yi dañoo mere nañ xoolaat bu baax ci profil yi nga xam ne li même lañ fas yéene jiital bu ñu bañee ñàkk élection yi kooku man maa ko wax